Heavyweight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 waa ji ab ko héberger sa waay xaar ba couple bi tukki dem Kaolack sa waay di dellu ci appartement bi buub la fa nekkoon yépp samba bi mu ngi wuyoo ci turu NDN moom nag ñu ngi ko doon atte ci tribunal bu ndakaaru mbir mi nag nee ñu nii la demee couple bi dañoo gis waa ji di wuyoo ci turu NDN dal di koy woolu héberger ko couple bi ñu ngi wuyoo ci turu FKF ak SMS ñoom ci weeru bi weesu la ñu gis héberger ko ci seen appartement dal di tukki dem Kaolack bi ñu tukkee dem Kaolack nag waa ji dal di dellu ci appartement bi ci ay booru vingt-deux heures ci guddi dajji appartement bi dal di buub la fa nekkoon yépp la wax takkaayu or yeeg tissu yeeg perruque cheveux naturel yeeg lal yaag éponge ya ventilo ya ma ne sa sax ñaari sàkku ceeb bi ñu fa bàyyi woon <laughs> ma ne ma waxaat ko réew mi feebaru sàcc la ñenn ñi amee dellu se ci la ñu gis ne wommi nañu leen naka noonu la leen seen dëkkandoo yi signalé ne leen waa ji ñu hébergé woon moo fi ñëw dal di gaare oto bu bagage yi yëpp ci sa waaye nag bi ñu ko tiinalee dafa njëkk a weddi ne du moom waaye nag bi ñu demee fi mu luwee la ñu gis yenn bagage yi mu sàcc nefa mu dénk ko ab colocataire am li ci gën a ti doy waar nag sa bi mu sàccee bagage dafa dem jël auberge ne ñaari corom borom diggu ndaandaat ay waay moo waxati ko réew mi xaalis boo liggéeyul rek nga yàq sa waay sax biñ koy teg loxo ci auberge boobu lañ ko fek <laughs> waaw góore waay te sax yoon nee na waa ji mas nañ koo teg loxo ñaari yoon ci wàllum njuuj njaaj tubaab di ko wax escroquerie <laughs> moo tax dee leen xool ñi ngeen di wóolu ma ne sa waay bisu mu sàcc rek toll na ci neuf cent mille waxuma lal ya matla ya périg ya jesner ya juróom benni voile ma ne waa ji ay dara sax yo yóbbu na ko ak ventilo ak ñaari saaku ceeb cinquante kilos ya fa nekkoon ak ñoo mën a sàcc yoon nag mujj na koo daan ñaari atu kaso yoo xam ni ñetti weer yi lay tëdd ba noppi amande ko téeméeri junni waaw góore waay moo tax ma ne jàngoro ji daal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca jam ñaajoo na war ab visil daal la fa ay yembu matt ko ba mu jaare fa ñàkk bakkanam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waa ji at mu ngi toll ci ñeen fukk moom daal yemb yee ko songu matt ko matt yu métti bala ko nit ñi di wàllu si naag fekk na mu ñàkk bakkanam mbir mi naag mu ngi xew altine bi weesu ba gendarmerie mujj na cee ubbi ab enquête yemb moom nuñ ci enquête moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca mbuur moor doy na war ab xale jigéen bu am 19 di wéyoo kaaka moo fa sàcc xaalisu seejo Diop amit moom it lu toll ci ñeent fukki at juróom-benn ndaw si nag fukki at ak juróom-ñeent la am amoon na benn doom moom daal dafa am problème mu xaalis daal di woosee Diop naka noonu ñoom ñaar ñu waxaale ba jubóo daal di daje ci seenub auberge bi ñu dajee ci auberge ba nag ndaw si ne see Diop na uti lu mu jëfandikoo maanaam kawas bu mu sol ndax planningul waay waay waay waay réew naka noonu see ci la génnee daw dem pharmacie fa bàyyi ab pantalon boo xam ne xaalis a ci sawaay bu mu génnee ndaw si daal di visiter pantalon bi sàcc ci lu toll ci cent cinquante deux mille génn ne mes dem sawaay bu mu dellu si waatee ci auberge bi moom daal ay miir la fa fekk ma ne ko ndaw si wax dëgg waay aw góore waay réew mi njaaloo rek njaaloo njaaloo njaaloo njaaloo ay waay bàyyi leen njaaloo waay waaye ñaari góor jigéen yi ñu wax ne ñoo doon sëy ci ab jàkk fële ci ab juma ay réew mi réew mi buñ ci jógul du baax de réew mi umbu na mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje sam samedi ci yeneen xibaaru buzz.